kii nee dafa gént jëkkëram passé ko. Mhm. loolu loolu baax na muy benn. Oh, deuxièmement keneen ki ne ma dafa gént xaj matt dàllam ak dàllu. jëkkëram dëmm la loolu dëmm. yóbbu ko nag. Mm. waxal xasi ba daf ko yóbbu matt dàllam ak dàllu jëkkëram ba pare yóbbu. gis na deret wala gisul deret. bàyyi ma tekki ko dàll ku ko màtt deret ni muy génn. léegi professeur léegi na wax yow tekki na tekki dama si fase bi ba pare léegi waaw waaw professeur màtt xaj bi waaye mu wax ma wax après nga après waaw hmm. léegi ki gént jëkkëram fase ko nag waaw ki gént jëkkëram fase ko boo seetlee moo jëkkër ji am na benn problème bu nekkoon seen diggante boo xam dafay xaw a yàq seen diggante neexul ni mu war a neexee bu géntee jëkkër ji fase ko mooy loolu day jeex problème boobu mooy jeex c'est le contraire ah kon contraire bi fase du am non non fase du am maanaam problème bi nekkoon ci seen diggante ñoom ñaar ñuy ah, xaw di jàppante tuuti am ay problème ay détails yu sew problème boobu mooy jeex. jot na ko fas. fase na ko. <laughs> ah problème bay jeex. non fase wu ko nii daa tiit. moo tax mu ah, yóbbal na ko quoi. waaw du réglé te sëy. waaw a yóbbal tebaloo dafa dafa tiit. non non ah, non non fi mu saraxe ma ngay saraxe rek fi mu nekk. ah eh, non da nga bu mu tiit dara. ah non lu baax mën na ut lu weex. waaw mu jàng ci Fatiha ñetti yoon. waaw saraxe ko. waaw léegi xaj bi ñëw mat dàllam ak dàllu jëkkëram yóbbu ko dem ak moom même personne bi déedéet déedéet keneen xam naa loolu loolu lan la. bàyyi saa firiwu. waxal pare ma wax loolu man pour man kooku. Mm. Mm. <laughs> yaa ngi ci xat-xat. man du xat-xat xar wax la lan la. Ah. seen couple dafa amul amul affinité. seen couple. amul amul foo foox. seen couple neexul. Mm. parce que xaj xaj bu jàppee sa daal day fo. day fo ci daal waaw. moom daa bëgg xaj moom xam nga ay xaj la yàlla xaj. mu defee ñu xam ñëpp a mbaal sagal ma rek amoon loolu. Ah, sagal ma ko sagal ndax àdduna koy seetaan. sagal ma rek le monde t'attend l'oreille. ñun baax waaw baax professeur doxalam mattee say daal yóbbu ko. sa daal jëkkër sa daal waaw wóoru am na ñu noon wax diggante ñoom ñaar. ilaahi xaj buy hmm. noon buy wax la. Hmm. mais bu nekkee sa xarit compagnon la xarit bu sincère la <clears throat> bu fekkee nag daf leen attaque ñu jël seen i daal yóbbu ko mooy noonu la boo xam dina wax ci seen diggante loo na yee fitna ci seen diggante ñoom ñaar ah. ñoom ñaar dinañ am jaaxle jaaxle ci seen relation wala ñu am jafe-jafe ci dara xat la hmm. yaa hmm. loo xam ne noonu moo ko def boo xam ne day wax ci ñoom ah, noonu yow xam nga dafa gën a nekk xalaat garaaw na de woon say dàll an kay koo daggoon yóbbu ko dàll moom foo dagg ko yóbbu waaw loolu lan la loolu du gént waaye lal la dàll bu dagg ci gént sax. man nga bonati. toog ba sa dàll ni teppit ci gént. waaw ah. ma dëkkam ma dem. dem ñëwal professeur. kii moom nee na dafa gént. ñu koy tax nii maa jox mhm. oustaz oustaz boobu nu si. kooku santoon Guèye. waaw ak kenn fii di gént. émission bi dama yaakaar ne gént bi moo leen yëngal fi mu nekk. waaw waaw parce que nee na moom dafa gént ñu koy tax dafa gént ñu koy tax mais xam nga dañuy tiit waaw ñu dem bay waaj a tax jàq jëkkër ji woote si jàq ja tas sëy bi muy benn deuxièmement kii moom neen dafa réer si marché ba di yuuxu rek ci marché ba la réer waaw lan la bu géntee mu réer ci marché bi mooy ku réer ci àddinam mooy ku jaaxle ci mbiri boppam ku jaaxle ci wàllu àddinaam wàllu liggéeyam wàllu sëyam wàllu famille am wàllu njabootam mën na nekk lu nekk parce que marché àddina lay représenté donc mooy am na ci ay jaaxle jaaxle am na ci lu ko ci lu ko saa waxee lu mënul résoudre mmh. donc problème boo xam ne daal mënu comprendre daf daf ci réer ko décortiquer mmh. voilà loolu réer réer loolu firi loolu lay firi ci gént jaaxle jaaxle ci sa ma ñëw waaw dem ah, ñaar yooyu la de ah, ah yooyu ah, julli sëlmal ak di julli bañ a sëlmal ci gént julli boo ko defee ci gént dina nekk ni am na mbir yoo dëgmal ba ko lijjanti waaw léeg-léeg mu jëm ci wàllu koom-koom waaw waaye boo sëlmalul nga yeewu hmm. mooy des na moo gént di jàpp ñu yem rarement ngay gis ku jàpp ba jàpp egg ci gént gi da ngay gént di jàpp mais bala moo egg rek nga yeewu mais boo jàppee ba jàpp egg hmm. nga kàbbar julli ba sëlmal hmm. mooy di nga am satisfaction ci benn soxla boo amoon benn besoin boo amoon waaw alors loolu man day maa ngi leen koy ñaan na rek koy ñaan di leen ko ñaan ngir yàlla ak yonent bi yoo xam bu leen ko wax man de am naa soxla man ñaan ko suñu borom mm-hmm. tëdd gént mais du jour bi ma ko ñaanee yi ma koy ñaan la ma dal mm-hmm. ñaan naa ko ñaan naa ko ba après ma arrêté mm-hmm. à gént naa julli ba sëlman macha allah suma benn sëriñ bu ñuy wax sëriñ Fallou Rahman ma ko nuyu chaque jour ci émission yi wax ko mu ni ma sëñ Cheikhu sëlmal nga man ne ko wallaay sëlmal naa mu ni ma julli nga gént nga nga julli ba sëlmal ma ne ko wallaay njaay sëlmal nga mu ni ma am nga looloon ñaan yàlla dina la ko may te loolu barke alquraanu karim yàlla may na dëgg la te yéen xam ngeen ni yàlla may na wallaahi dëgg la yàlla may na xam nañ ci dara ñu eh, bugguma ko wax nag ma bu ko wax dama la ma dama la ma bëgguma ko wax nag mais loolu moom suñu borom may na ma ko te maa ngi ko ci sant alaay wooral benn fan sant ko yàlla démb wax nañ ma ko nag ah. démb nee nañ ma wooral benn mais démb ni situation bi demee ma wax ko wala ma ba waaye bilaay sa waay bul wax sama yëf nag nga yow ah, ah, màq bi ñu jox ñi waaw léegi ala am na bu ma dinaa ko woor nag force la bis bi bisam boobu bis bi ma bi ma yàlla joxee xéewal biyee màq dinaa ko bu dellu see dinaa ko war sante ko yàlla sunu borom. loolu baax na saa ngeen bee ma hmm. waaw. mooy ki jëkkër ji waaj doon waaj a taq. waaw ba ñuy waaj a xutba say bi jëkkër ji war si yàq ca sëy bi. Ah, waaw waaw ah, ki ñu doon waaj takk. waaw ci gént gi. waaw bay waaj a xutba jëkkër ji woote ki a takk. waaw woote tas sëy bi. ci dëggantaan moom amul jëkkër. amul jëkkër. kooku it nekkul ku koy sàkku jabar ci dëggantaan. non non non parce que dafay dépendre ci ñaar yooyu ba xam dëggantaan gént rek quoi daf ko gént loolu rek donc effect ah mais loolu mën na nekk soxla bu mu am mu dem ba ci dernière minute yi mu am tuuti ay ay ay détails yu ndaw daaw di yaakaar bu tas tuuti yaakaar bu xaw a tas tuuti quoi mhm. parce que tas nañu sëy bi mooy que na gént ñu lay takk baax na chance mais tas bi ah, tas bi mooy dana am retard mooy peut-être ñoom mën nañu programmer dañuy takk mu dem ba si bi mu am ay gàllankoor mu am retard ñu jàppaat beneen la waa léegi hmm. kii dafa gént am magasin ñëpp di ko coow magasin bu rafet mu dem ba koy ubbi doxo doxo dox bay ubbi magasin ba caabi bi réer hmm. mu dëpp ñu naan c'est fini nit ñi di jooy nit ñi di kërëb kërëb dafa muy jaaraat pour jëli caabi bi dafa metti mais foncé na ba dem ba jënd caabi bi hmm. na bàyyi magasin bi. waaw caabi ci gént. macha allah même caabi bi. waaw jëndaat na ko. caabi ça veut tout dire gént. waaw buntu xéewal la. doom la wërsëg la. ñaan bu ubbeeku la xam nga buntu ngay tijji. Hmm. tijjeeku la ñaan bu nangu la ñaan bu ubbeeku la ci moom. Hmm. mais nag bi mu ñëwee am na lu mu jëf pour egg foofu. mais après dafay am lu des. mi ngi mel ne ngay lijjanti benn affaire ba ci fin ñu ne non il faut nga wuti kayit sàngam. waaw nga delluwaat nag loolu nekk lu jafe. mu delluwaat di kërti kërti di lijjanti ba am loolu indi ko pour mën a pour mën problème bi am mooy wër gi mu wëri caabi ji ba gis ko ba jënd ko indi mooy benn affaire bu ko manqué pour mu mën a réaliser benn projet boo xam ne dana ko am dana ko uti ji loolu dana ñëw ba as ñu ko des na nangam il faut nga indi nangam pour am lii mu dem uti loolu ba am ko indi mooy caabi ji mu indi ko mais moom mu ni découragé wul da koy dem wuti effectivement caabi si baax na baax na boo ko foree buñ la ko joxee bu dee caabi yu bëri bu dee benn caabi mën na nekk doom booy am te bu dee caabi yu bëri wërsëg la diggante duus bu salte ak duus bu xat foofu ay souci la ay problème la ay feebar la hmm. problème bu xaalis la souvent waaw duus bu salte salte ak duus bu set set lu bare lu ko nit di la nga hmm. dugg ci duus bu salte hmm. nga gis mu taq ah, mooy am nga ay souci wu xaalis am nga ay problème wu xaalis duus bu lan bu salte bu salte ah. mooy da ngaa am ay problème wu xaalis yow jënd wala nga tawat wala nga am tuuti feebar waaw wala nga nekk ci situation bu gênant bu délicat bu délicate situation boobu daf lay gêner quoi am benn problème boo xam daal vraiment nga ci am lu gêne da ci mm. kii mooy gêne bi nga am ci problème bi nga nekk wala nga am problème mu xaalis parce que tamit loolu mën na dellu ci chaîne ba tey problème mu xaalis boo am boo war ko résoudre xaalis boo a a lijjanti a def nangam la nga wax bëggoon wàllu dama géntu wàlliw lan lay signifier géntu wàlliw ba pare ma doog wax man wàlliw bu ma gént géntu wàlliw lan la non dafay dépendre ci noo gisee wàllu bi lu ngeen jëflante lu mu wax lu mu def waaw kay man li ñu jëflante ak man wala jëmmam et cetera sëñ Saaliw Mbàkke laa gént hmm. ma ñëw fekk mbooloo mu bëri nekk hmm. ma ñëw dugg hmm. sukk ci ay tànkam mu yëkkati gerte kemb moom laa ko fekk muy lekk mu may ma ci gerte kemb bi na ma lekkal mu ne ma ñun ñi nekk ci bunt bi këyit yu weex yu ñu yor demal nga récupérer ma yëpp nga andil ma ko ma yu weex ñoo andil ko toog ci wetam di lekk gerte kenn suñu Saliou Mbacke temps bi ngay gént loolu boobu yaa ngi xaw a nekk ci ay dëgër dëgër temps yaa ngi xaw a am ay jafe-jafe yu ndaw ay dëgër dëgër yu ndaw yoo nekk di ko résoudre hmm. gis gi nga ko gis ci gént mu jox la gerte gi ni la yéyal yéy oh, ko mooy dëgër dëgër ya moom la dindi hmm. gàllankoor yi la doon yi doon bloqué moom la la teggil moom la la dindil li ne la këyit yu weex yi ci nit ñi indil ma ko mooy yow sa bopp di nga jëf ci wàllam ci liggéeyam dara. di nga dem ba di nga am looy jëf ci nit ñi luy dellu ci moom. xëy këyit yi. mooy këyit yi nga récupéré ci nit ñi indi ko di am looy jëf ci diine wala ci tariixa bi ci yoonu murit wala ci àddina rek ci lu mu mën a doon loo xam ne luy dellu ci. lu mu bëgg dem naa toj xel kom. waaw ma ni. professeur toj xel kom ma ni toj naa xel kom tool ya bay. ma ni. parce que alxuraan léegi. ànd ak ah, Kader demal demal demal demal parce ñett laa ko bëgg a enchaîner. ma ne nga tëj. waaw ma tëj nga ne bëri mhm. waxuma ne man la ba tey de. waaye du yow. ñeent ne man la de. nga ni bërët. ay saay-saay mhm. di la dàq. di la dàq di la dàq di la dàq la ay bandi agresseur ay bandi yu la bëgg a rey. Mhm. nga nga daw bi nga dawee ñu ubbi la benn bunt da nga ñëw jub bunt bi mu ubbeeku nga daal daw daw ci benn suufu beñ bu rafet rafeta rafet rafet mais ñoom ñu ngi lay bëgg a dàq jàpp bi ñu demee ba lay bëgg a dàq di la jàpp nga plongé yow ci suuf si suuf si mëdd la muur la d'accord mhm. ñoom ñu taxaw xool gisatuñ la mais yow bi nga génnee ci suuf da yam ci Serigne baabakar si yam ci sëriñ saaliwu Mbakke. Hmm. ñu yëkkati benn ay grain yu vert yu mel ni lentille. lentille jox la ko nga ni maam. ma lekk. waaw wala ma sangoo. ñu ne la boo lekkee baax na boo sangoo. baax nga ma gént bi. nga di eh, man waxuma. nga daal di yow loola man waxuma ne maa ko gént si gént man dañ may envoyé ay ah. ay nii may liir bii waxoon nga ma ko ñool déedéet déedéet waxuma la waxuma la dara sa waay <laughs> waxuma la ki gént loolu waaw waaw daa ko gént waaw jamono bi muy gént loolu waaw soit amoon na ay crainte yu mu yu fitam dalul woon waaw ci wàllu boppam waaw ci wàllu ñu koy liggéey mm. wàllu seytaane mm. wàllu rab fekk na jamono boobu fitam xaw na ci yëngu tuuti njëkk na ak dal. effectivement li mu gént mu koy dàq mën na nekk benn peur imaginaire. waaw maanaam crainte yu mu am yoo xam ne c'est faux. mooy nga gént dara dina dàq. wala lu mu war a affronter. waaw ñemewu ko mu koy daw. loolu dina tax nga gént ñu lay dàq. mais bu fekkee yooyu dañ ko dàq seytaane la yu ko dàq ba mu daw ba plongé ci biir suuf si dugg ci suuf si. mooy am na kaaraange. waaw am na protection bu dëgër. am na ndimbalu yàlla mooy ñaari nit yàlla yi nga gis noonu waaw a nga ni nga tax nga muur moo tax ñoom mënatuñ la gis maanaam ñi doon fexeel ay seytaane la wala ay noon yu lay xeex mënatuñ la gis mooy mënatuñ ci yow dara mu xamuñ sax fu ñu jaar pour def la dara waaw ñooñu nag ñoo la protégé ñoo la nooyalal suuf si ba nga dugg ci biir nuuru xam nga nit munoo daw naturellement suufu bu rafet waaw nooy mu ngoog foofu taw féex la waaw dafa mel ni suufu géej. voilà taw féex la comme suufu géej waaw. comme suufu géej la mel suuf bu brillé bu rafet. bu bu kii la. boo dawee ba dugg ci mooy après da ngay am taw féex ginnaaw bi nga jógee ci ay fitna. waaw instant boobu jóge nga ci ay fitna. ñëw ci taw féex. grain yi. waa waaw léegi nag ni nga nuuroo ñoom ñoo la protégé. waaw maanaam bul yàkkamti. léegi ni nga nuqee nag jóg taxaw gis leen ñoom ñaar. grain yooyu ñuy jox mooy sa kaaraange mais mooy dindi ci yow feebar bu fekkoon da ngaa tawat. Hmm. mooy nekk tamit li wat li lay aar ba kenn du la mën a waa léegi gént ci suufu beñ bu weex tàll mel ni perkaal di ci dox ba ci yàgg yéeg ci kaw fas rek fas wa naaw ak yow loolu lan la loolu lu baax ah man géntuma ko damay laaj rek ay la yu ñuy envoyé waaw ah? fas bu naaw saali bi ko génte yàgg na de ah, ko professeur dañ ma koy envoyé nii rek non bi yaa ko gént daa ko géntee bàyyi ko rek ah? bi yaa ko génte bi yaa ko gént yàgg na ku la ko wax non yaa ko gént ku la wax moo ko yaa ko gént fas bu weex tàll la gis nga bi nga ñëwee. waaw nga yëg ci. Hmm. fas boobu naaw ak yow. waaw ndoona la yëkkati ko boo am ci àddina la. Hmm. Mhm. yëkkati ko boo am ci àddina ñëpp xam la ci la kaaraa la ci yow. alaaji ñëwal loolu xam nga ko bu baax xam nga ko bu baax. kii moom nga ne waaw ñett la. Mhm. bi yàpp la génn. gént mhm. ci lal bi matt baax bi waaw. Hmm, na yàpp bu ñorul waaw. gént na matt. gént na tamit chaque semaine mu gént nit ku dee. ah de kii jaw la benn nit. ah la. chaque semaine mu gént nit ku dee. chaque dina gént nit ku dee. waa kii moom lu mu. benn nit moo ko gént. kii <laughs> da nga koo xam. xam nga nit xam nga yéen a lancé message ne gént la ñuy firi bi. waaw yow xam nga nit ko xam naa bu ko tudd mais mooy kii. kan ah! kan oh! ah bu ko wax de. te <laughs> xam la eh, eh. wax kan la ah, dimbali ma nga ji yàlla mais démb kii. Eh, ah ok waaw bu ko wax. <laughs> ñett yu mu gént doy non non kii moom mënoo maa wax ne moom nii la moom. gént na yàpp bu ñorul. ak ay matt man xam dee. waaw loolu chaque semaine mu gént nit ku dee. waaw loolu du dara ça dépend ci nit ku dee nu mu demee. Mhm. xam nga gént du kenn du ko nettalee noonu. waaw kay damaa gént Dakar lu muy firi. <laughs> damaa gént Mbuur Dakar kay sax rek. voilà loolu nga ne damaa gént mis yi ñu teg ko ci ngonnal. yooyu dépendre dafay dépendre. yooyu waxi lan dafa waroon gën a développé. Ah, waaw damaa diw diw ku faatu la. waaw damaa ko mu dellu si ci kër gi waaw wala mu wax ak man lii wala mu def nii wala mu def naa ci ngay mën a expliquer gént bi lan la daa def ne chaque semaine dina gént nit ku dee loolu du dara moom muy gént nit ku dee firiwul si moom dara yàpp bi au contraire euh, relation la bu mu am ak ñi denc ñi wan ginnaaw peut-être dafa bëri lu muy ñaanal ñu génn àddina ah d'accord moom dafa bëri mën na nekk ah, waaw non dafa bëri lu mu leen ñaanal parce que waaw borom kurus la waaw yàpp bi yàpp bi non non loolu moom bi nag amul mën na nekk loolu moom dafa bëri lu muy ñaanal ñu dee nee na ñooñu muy gis bu fekkee daf leen gis ci melokaan bu rafet mooy ñooñu yi ngi am mbégte ci ñu ngi texe waaw ñu koy yëg ci concert et su tamit ñooñu ña nga ca taw feex ña nga ci xéewal loolu lay représenté bu la kenn invité yeneen télé yi nag fii nga bokk fii nga bokk léegi ki gën ci yàpp bu ñorul waaw moom la ba waaw yàpp bu nag la ciy joué mais fekkee dafa gis dañ koy daggate hmm. dañ dañ koy daggate mooy ay wax la yu am ci diggante ay nit ay wax matt nag ay matt ay soucis yu mu am na ci biir néegam mat baaxul man kay mat moom. <laughs> ku nekk yaa xam sa mat moom sa matti lal ku ne yaa xam sa matti lal. non professeur ma ñëw <laughs> man bi may tëjee. man bi may tëjee man professeur damay njëkk a laaj bokkul sax si affaire gént yi ba dama koy laaj ba far doog wax li ma ko gént man la. Hmm. dëmm. ah eh! reconnaître nañ ko ci l'islam. jaxatu wala reconnaître ko ci l'islam dëmm. dégg naa foo ko tudd am na kuñ fa dëmm amul ah amul. léegi man xam nga dëmm amul nga wax. dama amul. ah thème di ñëw loolu. très bien man de li ma gën de professeur. tey booy jox Cheikh man dañuy gas ci dëmb de. ci dëmb ci laa nekk barki professeur li nga wax nii. ah, ah. nga ñu bëri. ñu bëri ñu ngi leen tam yàq. waaye léegi njool